Safina FM 98.2, la religion et la culture au service du développement. Le pot de chacun de nous pour le bonheur de tous, la solidarité à l'état pur. Safina, système d'appui à la formation et aux initiatives nouvelles en Afrique. Safina FM, retour aux bonnes valeurs. Formation et éducation, éveil des consciences. Notre credo, quitter le bien pour Assalamu alaikum. Bok yi Bok taalibe Safina FM 98.2, Radio 2 rajo bi saf askan wi indilati leen jotaay bu bees Sénégal ngeen ciy dalal borom xam-xam Sen seen xam-xam màcc ci faj ak ñaan yàlla Praticien. gën leen tous les jours du lundi au vendredi 13h 14h ku ci bëgg participer wooteel ci 33 867 52 52 33 867 52 52 wala nga def 77 316 29 28 77. 316 29 28 98.2 point FM radio bi sax Boki Boka mbokk yi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 mbokk yi nag eh, ñu baaxoo waxtu wu nekk di ànd ak yéen ci jotaay bi di kàngamu Sénégal di ci dalal borom xam-xam yu seen xam-xam màcc ci pàcc ak ñaan yàlla ni ñu ko eh, baaxooy di def ak yéen tey ji nag ñu dalal eh, jàmbaar ji nga xamante ni kenn du ko présenté kenn à travers le monde entier réew mi yëpp xam ko ci xam-xamam xam ko fa tabaarakallaahu ci taxawu gi muy taxawu jaamu yàlla yi xam ko ci jikkoom ju rafet muy Cheikh Djibril Diallo nekk fële ca Yoff APEXI mbokk yi balaa ñuy ànd ak moom ci biir waxtaan wi ñu bàyyi rek Cheikh nuyu nuyoon teg auditeur auditrice Safina FM yi yi ñuy déglu. الشيطان الرجيم وحفظا من كل شيطان مارد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم شيخ داوود السلام عليكم يان اوديتور ياك اوديتريسي ني نيو نيك سي تور اكسيسانت ان شاء الله شيخ جبريل تاي دالغا سي ايميشن كانغامو سينيغال في نك كوفي نيو واختاني خام خام ndax mooy émission bi àdduna yëpp di gàgganti ko mooy émission bi àdduna yëpp di gindikoo waaye mooy émission bi tegtal jaami yàlla ci seen soxla ak seeni jàngoro fu ñu war a jëm euh, Cheikh Jibril réew mi gën nañ la miin ci fajum rab ndax ci loolu rek nga yëngu waaw ñun suñu liggéey xaw na yaatu ci comme façon faj bi euh, dañuy yëngu ci wàllum faju rab en même temps dañuy yëngu tam ci wàllum faj yeneen feebar yi comme lu ci mel ni ay hémorroïdes wala ay cystite wala ay éjaculation précoce wala lu ci mel ni ay prostate wala ay diabète wala ay tension wala lu ci mel ni tey jii tamit euh, si nit ki euh, jàngoro bu nit mënta am daal ala kulli lu jiitu avant tout dañ lay consulter bu la consulter pare après bu ñu xamee li nekk sa yaram après ñu soog laa wax traitement bi ni muy demee incha allah. Mhm. dañu gis itam nga am itam ay boutique boutique yooyu boutiku lan la. waaw boutique bio plante naturelle la yoo xamante ni am na ay siro am na ay confiture am na ay thé am na aussi tamit ay genre bëri daal ay façon yoo xamante ni comme feebar bu mu nit mënta gis ñenn ñi nga xamante ni ñemuñ parfois dem ci côté sungu fi ak reen yooyu am nañ ay plantes spécialement yoo xamante ni pour yooyu la moo xam nit ki danga nga asthme moo xam da nga diabétique moo xam te da euh, am yaram bëgg a wàññeeku moo xam estomac da la sonal wala new carton aussi dafa dal nit ki wala jigen yi nga xamanteni aussi parfois dañuy seyti duñ yek banex wala jigen yi nga xamanteni euh, wala nit ñi nga xamanteni parfois dañ am problème pour appétit dal mhm. plante yoy aussi tim yor nañ ko machallah mais ki asthme ci yam ci ci ñata tang ko fay ki asthme waaw traitement lay doon sans départ ci nit ki. Euh, ci jàngoroom tool ci jàngoroom tool. Uh-huh. l'essentiel bu ñu la consulter pare après dañ xam carrément sa traitement ñaata temps la war a de uh-huh. jël bu fekkee un mois ñu xam un mois bu fekkee deux mois ñu xam deux mois incha allah. Uh-huh. mais euh, nit ki ñëw am am jàngoroom euh, jàngoro yi ndoxum siti yan signe lay lay def ci moom jàngoro yi ndoxum siti. waaw siti moom mooy ndeyu jàngoro yi siti yaatu na ci nu muy def doomu aadama siti day tàngal yaram. siti day lakk yaram siti day dagg karaw siti day xonkal bët siti tamit bokk na ci li nga xamante day indi ay bëñ yu metti siti day tànk euh, day day indi ay loxo yu ñagas wala tànk yu ñagas wala muy xar sa tànk yi siti ah dina tax tamit euh, ku góor ki néew kàttan dina tax tamit ku jigéen ki aussi réglam du normal dina indi ay articulation yu metti dina dem ba tamit euh, tax ku jigéen ki wala ku góor ki pour mu am doom du yomb fekkee côté jigéen ki la mun na dem ba nga xamante ni lépp bépp euh, expert bu dugg ci moom da ngay lakk moom jeex bu fekkee ku côté gu góor ki tamit même kàttam puissance bu mu doon war a am tamit da ngay wàññi baax a baax te loolu mooy dem ba indi infection hémorroïde comprendre nga. yooyu yëpp siti moo koy jur. waaw siti moo koy jur. ah bon waaw mais siti toujours allergie la. parce que bari na ñoo xamante ne ñooy faj ci wàllum siti di jox nit ki garab parfois yaram bi ñuy gis muy génn ay picc ñu naan waa garab feebar bi muy génn mais. nit ki booy faj nit ki dëgg-dëgg dangay xool lam moo indi jàngoro boobu. Uh-huh. jàngoro bi feebar boo mënta gis am na lu muy bañ. lu uh-huh. jiit avant tout booy traité nit ki booy traité nit ki da nga naan carrément. bi lii ak lii lay bañ nit ki suivre traitement boobu nga xamante ne buy jël garab bi antibiotique lay doon boo xamante ni da ngay naan mu raxas ko ba mu set bu fekkee dafa génn ci yaram bi am nañ ay pommades yoom spécialement pour loolu nit ki dina ko jël te du ko indi benn gàllankoor wala ay tache wala ay bouton ci yaramam incha allah. Uh-huh. aussi tamit siti bëggul lépp lu xeetook fruits de mer surtout jën bu ñuul lu ci mel ni ay crevettes ay sardines ay thon wala lu ci mel ni ay yabooy bëgg ko bëggul aussi lépp lu xeetook arachide moo xam gerte caaf bi la moo xam maafe bi la wala daxiñ bi la wala baasi bi buggul aussi lu mel ni jus bi saab wala bëgëj wala neen bu ñu baxal wala lu ñu ci mel ni soow piir wala yàpp bëri graisse surtout ah, yàpp mais ñi amee cité ak ñun suñu <laughs> lekk yi am ci réew mi ñooñu baa duñu xaw a sonn waaw mais am nañ wala am na lekk yoo xam am na xamante ni comme jën bu weex bi nit mun na ko lekk te du ko indil benn gàllankoor mais boo laalee bopp bi toujours am nañ cité dafa mel ni cité euh, euh, dafa am bu góor am bu jigéen dafa am yu soxorante am na cité boo xamante ni boo laalee dina génn ay picc mais du garaaw noonu Uh-huh. am boo xam ne boo laalee da nga sentir yaram bi di tàng mais am na si am na ñoo xam ne bu ñu ko laalee ci saa si seen tuñ day néewi hmm? wala am na muy manifesté wu def ay genre heure yu ngande seen biir yaram doomu aadama yi dañoo uute am na ñoo xam seen yaram buggul yéen yi bokk buñ ko jëlee ci saa si dañ commencé gis manifestation yu muy def parce que léeg-léeg nga gis nit ku yeewu am ay affaire ci kanamam ni dama allergie dara te du ci du bàyyi xel ka ni siti la wala déet moom day jàpp ni peut-être lekk na dara wala am na lu ko laal lu tax loolu génn. waaw mooy comme li may wax rek nit ki bu la daree jotee tak toogal nga analise mooy comme li may wax rek toujours nit loo ko xam-xam moo la gën a xam boppam. Uh-huh. yow boo toogee def sa analise war nga mën a xam lan nga lekk ci sa ginnaaw. Uh-huh. li nga lekk noonu ndax sa yaram nangu na ko wala nangu ko. Uh-huh. comme parce que doomu aadama. waaw lekk tamit lii feeñ est-ce que du parce que doomu aadama bu nekk am nu ko yàlla bindee. mais yàlla bu la de joxee xel moom deseetu la dara toujours war nga mën a def attention ci li la def loolu lan la. nga toog def say analyse beneen boo ko lekkaatee nga gis ni carrément am na nu mu manifesté wu rek nga def ci attention oh. nga bañ koy jëlaat parce que sinon boo koy gën a jël mu la indil ay jàng ay gàllankoor yoo xamante ni doy waar lay doon yow ci ñaata temps ngay faj siti euh, ñun suñ traitement siti dina jël un mois parce que siti da doon loo xamante ni feebar la boo xam ci deret lay nekk ci biir lay nekk da ngay jox nit ki koy naan ñu koy suivre ko tawfeex incha allah mais da nga koy faj ba mu wér carrément ci kàttan à cent pour cent cité dana loo xamante day nelaw noppalu. mais nit ki bu laalee leen lu mu bañ rek day manifester wu parce que euh, bu fekkee nit ki yow traité nañ la carrément li nga xamante ni yow loolu nga yëg nga suivre loolu normal dootoo ko gisati si benn yaram mais bu fekkee da nga xaw a sàggan parfois di laal yenn yi nga xamante waroo ko laal toujours pour mu manifester waat aussi tamit day yomb moo tax nit ki parfois foog nga ciy def attention bu baax. mais ki cité dominé indil ko impuissance kooku ci ñaata temps nga koy waaw sans départ ci nit ki nous mu parce que impuissance amna mais parfois tam nit ki amna na ñi ñoo xamante ñom ñoy ñooy njëkk a fooye seen bopp ba lool indi leen impuissance tamit bu ci fekkee cité tamit day gëna graw mu dem ba joxaat ki hémorroïde kon day don traitement bom traitement bu sérieux la dina diir un mois 15 jours ba deux mois mhm. parce que nit ki fo nga suivre ko lool yëpp xam nga ba mu jeex tak mais da ngay ah. gis ñenn ñi parfois dañoo ñeme yalla da ngay ñëw tay ñu mëna mën la ko traiter une semaine <laughs> wala ay dix jours wala ay quinze jours lool ay wax la xam nga loolu parfois ku la ko wax yow war nga mën a xam ni carrément kii lu mu la wax euh, neexul dégg daal. Uh-huh. moo tax nit kii parfois bul ni ay kii euh, dafa doon faj bi ci papam wala ci maam rek mais nit lépp looy def foog nga doon taalibe ëllëg nga doon sëriñam. Uh-huh. doo euh, danga nga koy jàng ba pare nga maîtriser ko pare nga xam carrément lan moo indi jàngoro yooyu. Uh-huh. ëllëg booy faj nit ki di ko indi benn gàllankoor mais nit ñi dañuy def parfois attention ci ñenn ñi nga xamante ni dañuy taxaw di wax rek uh-huh. parce que uh-huh. yaram dafa xaw sensible te surtout biir dafa doon loo xam lu tëju la te nit lépp looy jël na nga xam dose bi ngay jox nit ki lan la lan la surtout waaw dose bi dafa am solo aussi tamit nga xam tamit jàngoro boobu parce que euh, yaram dina tàng ñu ne carrément lii siti la mais yaram dina tàng fekk jabet la yaram dina tàng fekk shayatin moo koy def yaram dina tàng fekk am na benn feebar boo xam moo nekk ci moom mooy manifesté wu ci loolu mais yooyu boo ko mënul ràññee bu nekk nga mën ko jox place am pour nga xam carrément jàngor bi juste day jafe. dafay jafe effectivement jërëjëf euh, Cheikh Djibril Diallo mbokk yi ni ñu baaxoo rek euh, saa su nekk su wax euh, bis bu jot bu waxtu bi jotee ñu ànd ak yéen ci jotaay bi ci benn boroom xam-xam gindi leen ci seen i jàngoro mais gindi leen ci seen i soxla. tey ñu dalal ni leen ko waxé won sank ko xamanteni kenn du présenter kenn Sénégal xam nañ ko muy Cheikh Djibril Diallo di borom xam-xam nekk ci Yoff APEXI ngeen mën ko jot ci 77 187 57 57 77 187 57 57 wala ngeen def 33 820 70 15 33 820 70 15 bo démé ba. Euh, Yoff euh, euh, ci koñu ku ba ci Yoff oh, ci Yoff Apex bi noonu ci koñu Ecobank beeg SGBS bi tout droit la boo passé via via bi diggante via via bi ak marathon dina gis tablo bi nekk foofu ci poto courant bi mhm. ñoo ci bind centre médical Al Afia mooy mhm. den ak benn pharmacie bu ñu naan pharmacie Pape Keba Thiam incha allah mhm. ku fa ñëw boo wootee incha allah ñu jël si mais wax léegi lu am solo ni impuissance ñaata koy indi ki foowee boppam ba loolu dab ko ak ki nga xamante ne dafa am ndoxu siti Mhm. donc ñom ñaar ñep da nga leen di faj. inshallah allah euh, parce que impuissance euh, lu ma la wax sànq dafa bëri façon am na ñoo xamante rap moo leen koy def loo am ñoom dañuy masturbé wu ba mu indi leen gàllankoor parce que loxo tooke la. Mhm. am ñoo xamante aussi site bu soxor bi nekk seen yaram moo koy def am na ñoo xamante rab bi nekk ci ñoom moo fiir moo tax pour mu yëg boppam du yomb comprendre euh, mais à la kulli nit ki bu ñëwee ak lu mënta am tamit dañ lay consulter ba ñu la consulter ci biir consultation dañ xam carrément lu indi problème bi lan la léegi ci lañ lay siiw ba yàlla defal tawfiq incha allah. mais du yàgg. non du yàgg incha allah. Euh, ba tey euh, Cheikh Djibril euh, xam nañ ne ci faj wax nga léegi lu mel ni ulcère lu mel ni hémorroïde nga xamante ni sonal na nit ñi trop yan taxawaay nga ci am. waaw yaatu na comme ni ma la ko waxee rek ñun toujours nit ki bu ñëwee buñ la consulter dinañ xam carrément ndax ulcère la wala ndax colopathie la dañuy xool carrément jàngoro bi lan moo ko indi lan la ndax ci côté lekk yi wala genre mel noonu léegi ci biir loolu noonu lañ lay suivre. tere la yenn yi ñu la war a tere nga suivre sa traitement ba yàlla defal la tawféex incha allah mais garab euh, am nañ garab yëpp moom macha allah am nañ garab yu bëri yoo xamante ñooy foofu te plante bio naturel la te amul benn effet secondaire te dose normal la te macha allah daal incha allah. mboolem jàngoro yi ngay faj yëpp yow am nga ay garabam. waaw man li may faj alhamdulilah am na ñu ci yàlla dénk daal macha allah garab yi fii lay jóge Sénégal wala bitim réew waaw am na yoo xamante ni Sénégal fii la man maa koy composé am na yoo xamante ni aussi tamit yoruñ plante yooyu fii Sénégal ñu ngi koy jëlee dëkk arabe yi wala lu mel ni Indonésie ñu ngi fay jëlee ay garab tamit wala yenn dëkk yi nga xamante ni aussi day yëngu ci wàllum plante bu baax comme lu ci mel ni ay Malaisie wala ci melni ay Chine wala ci melni tamit ay euh, dubai ak genre mel noonu daal. ok say garab lay jógee ba boor yooyu waaw ay Tunisie dañuy composé seen garab yooyu parce que plante yooyu mënul mënul sax fii Sénégal. ok comprendre am na garab yoo xamante ni am na suuf yoo am ko léegi ci garab yooyu lañuy jël ñu jàng ak composant wu garab Sénégal yi am nañu ko composé di ko utiliser am na yoo xamante ni tamit noonu la ñu koy indilee naturellement ñu koy traité te alhamdulilah nit ñaa ngi ci gis seen bopp bu baax a baax incha allah.

du ci ëpp lu koy indi perturbation euh, règle yu yu yu yu euh, perturbé uh-huh. bokk na ci li koy indi mais fibrome bu fekkee début bi la mun nañ koo traité mais bu demee ba commencé maag lu gën mooy nga dem hôpital mais toujours lu may conseil nit ki nga xam ne dafa am fibrome avant muy ñëw ci man nga dem ci hôpital ba mu wax la fibrome ni mu toll bu fekkee bu màgg la nga suivre sa euh, traitement hôpital moo gën parce que ñun amuñ ay appareils yu opéré wala genre mel noonu te biir da loo xamante ni fibrome da doon loo xamante ni mel luy sax ci biir mun nga opérer benn nga jékki-jékki am beneen euh, nga amaat benn comme démb am naa ci benn cas benn fem boo xam ne dafa ñëw ci man ma consulter ko ñu waxtaan ma xam ne carrément bi mu yor nii beneen beneen dafa judduwaat ci biir bi mais mënu ma ko traiter mais dama ko ni carrément demal hôpital nga suivre sa traitement parce que ku nekk ci ñun tamit am na li nga xamante loolu la yàlla dénk mooy ñun am na loo xam ne nañ ko traité mais am na loo xamante ni bu ñu ko mënul traité bu ñu sànq nit ki daal waaw liggéey médecin la leen bàyyi ñoom ñu dem parce que yàlla mooy yaatalee noonu yërmande très bien mhm. Mhm. très mais bëgg na xam ne tam fibrome yooyu yan signe lay nan lay manifesté woo ci nit ki boobu ko sentiree mën a daw seeti boppam rapidement waaw nu muy manifesté wu bëri na biir bi dina métti léeg-léeg règle bi tamit du normal nga sentir affaire mel luy daw ci biir biir bi loo moom saa yaa ko sentir dawal nga xool waaw mais ñi nga euh, baax na tamit nit ñi di jël di utiliser nebedaay baax na trop trop trop ci ay yenn genre yu mel noonu feebar yu mel noonu baax na tamit ci ay cancer euh, de sein tout ça mu ngi koy jël antibiotique la boo xam day nettoyer sa yaram bu baax a baax te yàlla moom moo xam nu muy euh, nu muy nattoo jaam bi ba indil ko cancer. Mhm. gaa yi ngi ci def ay jéego yu baax nag pour mun a xam ma nu ñu koy traité mais borom xam-xam yëpp nag tënku nañ ci nebedaay moo ci gën a gaaw incha allah. moom cancer. waaw moo gën a gaaw ci cancer incha allah. Mhm. nan nan nga koy nan nga koy jëfandikoo. waa demi ver euh, demi euh, demi euh, cuillère à café la nit ki di jël def ko ci demi verre d'eau yëngal bàyyi ba su ma si wàcc.

di leen wax rek ni Cheikh Djibril mën ngeen ko jot ci 77 187 57 57 77 187 57 57 wala ngeen def 33 820 70 15 33 820 70 15 Cheikh Djibril euh, ki bëgg a ak yow nek bitim rew naka lay def ndax yow da ngay déplacé wala da nga am ay GP yu yobu say garab. waaw am nañ GP yi nga xamante ni euh, dañuy liggéey ak ñoom wala ñenn ñi nga xamante ni tamit seen dëkk yi amul GP parce que am na ñoom ci village yi lañ nekk ci européens yi wala yeneen dëkk yi toujours dañuy composé garab bi envoyé ko par poste wala envoyé par GP wala fekkee am na benn mbokkam buy dem ñu composé ko garab jox ko ko mais bëri nañ ay patients yoo xam ne ñoo leen suivre en distance ñenn ñoo leen mocc en distance. ñenn ñi aussi dañ leen composé ay garab envoyé leen en distance ñu leen suivre seen traitement ba yàlla dafa leen taw fee incha mhm. allah même ki fu waay nekk ci àdduna bu ngeen déggantee téléphone mën mën nga jëflante ak incha allah incha allah parce que yàlla yombal na lépp yàlla yombal na lépp léegi GP yaa ngi dem euh, post yi tamit macha allah ñoo fu ne léegi boo xoolee te lu ci des tamit aussi yàlla yombal na tamit WhatsApp a ngi am nit ñaa ngi jokkoo nit ki di xam carrément mhm, nu mu koy mhm, consulter mhm, ak feebaram ba mu ba li nekk ci moom dañ daal incha allah lépp tamit ci dellu di sant yàlla santat yàlla rek bu baax a baax macha allah macha allah macha jëf jërëjëf Cheikh Djibril mais dafa am benn feebar bu nit ñi ragal muy tuberculose yal nañ ci yàlla musal mais ndax da ngay faj tuberculose waaw dañ koy traité am nañ ay garab spécialement pour loolu yoo xamante ni tuberculose boo xoolee ci période nawet la ëpp lu muy dal nit ñi nag mais am nañ garab boo. xamante lan moo tax période nawet mu ëpp ci lu mu ci dal nit parce que boo xoolee suuf si day tooy boo xoolee tamit nit ñi bëri tamit climat bu changé tamit day gis yenn feebar yu bëri day manifesté wu. moo tax parfois jaxasoo beeg yenn yu bëri tamit nit ñi parfois dañ koy prévenir boo xoolee am na dëkk yu bëri yoo xamante ni ah gën nañoo avancer ci côté boobu parce que am nañ produit yoo xamante ni nit ki toujours da nga koy jël nga xamante ni avant euh, nawet di ñëw wala avant yenn jàngoro yi di ñëw sax yow day fekk yow préparé nga sa bopp bu pare. waaw mais boo xoolee ñun fii tey jii euh, Séné surtout Sénégal dañu xaw a sàggane côté garab. surtout côté plante dañ naan nit ki pour nga faju rek foog nga feebar wala genre mel noonu te loolu. da nga naan ñun Sénégal dañu sàggane suñu wér yaram balaa nit di dem hôpital. day yëg lu ko lu koy metti te or que nit war nay jug léeg-léeg di seeti fajkat yi ak euh, euh, médecin yi xool seen yaram laataa dara di xew. dama mës a toog benn mag boo xamante ni Eh, yàlla jële na ko fi sax yàlla na ko yàlla eh, yërëm amiin te yéexe ñu dañoo mës a toog mu ne moom moom mosumaa gis mu am benn jànga eh, jàngoro boo xamante bu ko sonal ba na yàlla jëlee noonu amaan na bisam dafa jot rek uh-huh. mais bëñam ak biiram ak kàttanam yëpp dem na ba am cent ans macha allah di am doom man ko yow lan mooy sa secret mu ne sama secret mooy lan lay duur xob bi lay mooy sana lay duur mu ne dama koy naan damay naan tamit senjeñ lu bëri damay naan tamit naan dog te boo xoolee yooyu da doon antibiotique yoo xamante ni benn bi. Euh, fàttali ma garab yi lay duur. lay duur la lay duur xob bi wala sunguf boo ci am. lay duur ak ban. ak senjeñ. senjeñ. waaw senjeñ. moom xam naa ko mais lay duur moom xaw ma fu mu am. waaw lay duur am na. mooy sana ci arab. ok. am na tamit euh, naan dog. naan dog waaw. ak biir. biir biir xam naa ko. waaw ñett yi lay jël chaque jour di ko utiliser. nee na bu naanee antibiotique yi da ngay loo ndox bu fekkee am na benn lekk bu bon boo xamante ne lekk na ko tamit ba mu toog ci biir bi mu bañ a génn bu naanee sana mooy lay dóor bi day raxas biir ba mu set. te aussi sënjën da doon loo xamante day nettoyer sa rein day nettoyer aussi sa naq te tamit da lay may puissance ci côté sëy moom sënjën waaw nen naan ndox tamit aussi day nettoyer boo xoolee góor lu tax ñu naan góor lu euh, jàngoro bu ko gën a bu ko gën a gaaw faat mooy biir te naan dop moo ci gën a gaaw sënjëñ euh, boo ko naanee pare na euh, da naan sana mu ñëw raxas lépp lu fa nekk lii dina ko tuur ndox lii tamit dina raxas bi parce que góor lu ko gën a téye ndiggam la te constipation bu bëri bu bëree ci nit ki dootu amati kàttan puissance bu nga doon demee day wàññeeku parce que nit lu gën mooy comme oto rek

wala commencé sentir sa kanam di xasan wala ngay tuur ndox lu bëri nga yaakaar ay prostate wala yeneen fekk ay infection yoo xamante ni ko jël ko jigéen ki boo xoolee jigéen yàlla da leen nattoo ñoom dañuy gis règle lu bëri dañuy am ay ay perte blanche dañuy am ay infection uh-huh. yow aussi toujours yow doo waajal sa bopp te ñoom presque euh, am nañ ay produits yoom ñoo ngi waajal seen bopp mais yéen a ko sekk yéen ñaar mais ku nekk ci yéen dafa war a jël ay matukaayam incha allah uh-huh, uh-huh. Uh-huh. mais nga waxati lu am solo ñu dellu ci li nga doon wax léegi muy eh, eh, garab yoo xamante ni baax na ci wér-gu-yaramu nit ki rawatina ko góor di nettoyer biiram lu mel ni lay dóor eh, senjeen ak béer béer nga wax léegi mm-hmm. ak beneen bi nandoom nandoom waaw waaw ok léegi na la ko nit ki di jëlee waaw comme takk nandoom bi nit mën na ko jël di ko xooj xooj ko ci butéel chaque jour mu ci am kaas matin kaas midi kaas soir bu ci nekk mën nañ ci amee loolu mais bu fekkee sana bi comme que journée bi da ngay occuper lu bëri nga bàyyi ba guddi nga infuser ko ci demi verre comme nga jël ci lu mat benn ngëb ngëbu loxo nga infuser ko naan ko bokk na ci li nga xamante balaa nga yeew lépp lu nekkoon sa biir dina ko nettoyé ba mu set incha allah da lay vider daal te bu la vider pare boo yeewoo da ngay sentir carrément nekkaat nga te aussi da lay yokkal sa carton. te en même temps tamit sa euh, ndox bi tamit aussi toujours day gën a normal daal incha dina gëna a normal daal. jërëjëf Cheikh jibril Diallo yaa ngi wax sax lu am solo fatali wat euh, auditeur auditrice yi ñi déglu ce numéro euh, di 77 187 57 57 77 187 57 57 wala nga def 33 820 70 15 33 820 70 15 Cheikh jibril Diallo nek fi ci yof APEXI. Euh, Cheikh Djibril ñu ngi doon wax sànq ci tuberculose nga commencé ko woon développé euh, tuberculose ndax euh, traitement am dina yàgg. non du yàgg noonu incha allah bu fekkee moment bu ñu ko dal rek bu ñu incha allah. dinañ ci taxaw daal ci kàttan yàlla incha allah. waaye xam nga sénégalais dafa baax sénégalais dafa baaxoo balaay faju sonn. waaw loolu moom am na mais mooy càggate boobay wax rek am na ñu bëri ñoo xam bu ñu commencé traité wu sax nii ñu yeggoon benn genre douleur wala leen lu leen sonal. buñ commencé am tawfeex rek dañuy bàyyeeku te fee euh, sa docteur euh, ki lay traité fii ak bàyyi la waroo bàyyi mais du tane naa rek bàyyi est ce que li nga xamante moo nekkoon ci yaram installé wu lépp deñ na moo tax toujours dafa baax nit ki nga koy suivre étape par étape ba yàlla defal nit ki tawfeex mhm. mais bu du yëg nga tànn rek nga daw. Mhm. Mhm. ndax yow say say say faj yow lu ëpp ci li ngay fajee lan la. waaw comme ni ma la ko waxee woon sànq rek ñun dañuy faj yëngu ci wàllum rab. faj ay rab mais lépp ci alquran ak sunna très bien dañuy dindi tamit ay xàmb wala kër gi nga xamante ne day lakk wala kër gi nga xamante ay liggéey kese fa nekk dañ koy dem yàq lépp ci alquran ak sunna amul ay sacrifice rey xar amul ay dara comme ni ko alquran jàngalee ak sunna nu mu ko santaane incha allah ba yàlla defal nit ki jàng kër gi am ay yàqu-yàqu yéen nu ngeen koy xamee waaw nit ki moo koy xam ñiy dëkk ci biir kër gi ñoom ñooy xam seen environnement bi ñu dundee nii li fi nekk waaw normal mooy comme barki dem am benn kër bu ma ko côté Fass kër gi day jékki-jékki di tàkk bu taalee néeg bi ba benn instant day jékki taal taal benn néeg bi ndeke li tax muy taal kër gi ci benn xale bu góor boo xamante ci moom lay jaar te jinne bi nee na moo ngi ko topp depuis mu nekkee xale xale bu góor bi waaw léegi buñ ko moccee noonu ndekete moom bu jinne monte rek da jël almet bi taal ndeke trois paquet almet la yoroon benn moo ko dencee ci suuf lal bi néeg néeg yi nga xamante moo ëpp importance ci biir kër gi ci néeg yooyu la ko def léegi ñoom bu ñu demee ba ba ba nekk euh, ba ba toog ba yaakaar ñoom ñoo ci nekk ñu gis benn benn néeg bi commencé de saxaar ndeke booy bi jinne jinne yi tamit yéegaan nañ ci moom commencé ta taalaat néeg boobu bu ñu fayee boobu jékki-jékki commencé gis rideau di tàkk mais bu ñu ko jàppee mocc ko ba benn instant jinne bi dafa mu ñii lan la ñuy def ci kër gi kër gi ñu ñoo ko moom depuis avant

moy amna shayatin yom di comme ni sa deret di bi sa biir shayatin bi dawee bi yaram moy nit ki tam toujours motax naan avant ngay ànd ak sa soxna baxna ci nga def doa yi nga xamante mom la sunna jàngale moy allahumma jannibni shaytan wa jannibni shaytan ma razaqta yoy gars duñ ko tal waaw mais boko talul tamit ëllëg dina indi galankor bo xolé ñom dem nañ ba am fitna fitna mooy lan dem nañ ba tey jii boo xoolee ñoom avant bu ma la fay fekk ñu ne guddi gi ñoom ñëpp foog ñu wër booy bi te ku nekk ci ñoom du nelaw dèjà loolu xam nga nekk na problème. ah loolu day. waaw wax waxal waxal ñaan gi allahumma jannibna shaytaan. wa jannibna shaytaan ma razaqtana moo tax. Euh, parfois di dugg ci ay toilettes nga ne allahumma euh, inni. bismillahi rahmaani rahiim allahumma inni a'uudu bika mina xubuth uh-huh. parce que dafa am ñaari shayatin yoo xamante dafa nekk foofu mooy xubuth ak xabaayis uh-huh. te bëri na ay shayatin yoo xamante ni bëri na ay feebar yoo xamante ni ñaa ngi koy jël ci biir toilette boo xoolee léegi salle de bain yi dañ koy nettoyer ba mu set ba yaakaar ni carrément salle bi ak néeg bi benn la te fekk déjà yow foofu nga nekk noonu environnement bu environnement charte lu mu set set boo xoolee dëkkuwaayu jàmbur la dëkkuwaayu jàmbur te ñoom dañu xam ne carrément yàlla ñoo bind ñun bind leen ñoom mais ñoom dafa am jalousie boo xam ne dafa nekk suñu diggante ak ñoom te seen maam ñoom Iblis waxoon na ko mu ne du ma bàyyi fenn yàlla sa jaam yi naa leen jaar gauche jaar leen droite yàlla moom ne sëf jaam bi ma gëm jaam bi ko gëm nag mooy lan mooy ñi nga xamante ni yàlla ñoom lay naan fadkuruni adkurkum washkuru wa takfurun yàlla fokk nga koy fàttaliku mu lay fàttali soo ko fàttee mu fàttali te yàlla nañ ci yàlla musal mooy jullit bi avant ngay def dara yow dimbali yàlla mooy bismillah nga dugg def lu ngay def ba pare génnaat mais ci diggante bi nga mm, léemoo ba pare ba nga tëdd boo jugaatee tamit soxlawaat sa bopp ci biir toilette yi boo dugg defal ñaani mais booy gënaat tamit defal jàpp ba pare te balaa ngay tëddaa musul shaytan parce que ci digënté bobu nga dem shaytan dula la dal mom occasion bu mu am day jéem def la tuub ba dugg te bëri na ño xamné parfois dañu am ay dom muy am ay yeen manifestation yu mi def fekk base bi fofu la wala base bi ci sëy bi buñ koy tak moy lan nit ki top ben xale bi jigen bëgg ko ba melni ko dof fekk xale bi jigen bëgg ko nga dem jabar ko pour nga nga tak déjà daf melni nga yor sa commande ya kay diriger dum la né te pour lolu diriger wu dafa am ben réseau shaytan bo xamante mom lañ ko bindé mooy sexre bi nga xamante moom lañ def ku jigéen ki kon topp ko léegi kooku noonu dèjà nekkatul kenn mhm. dèjà ñaar lay doon mhm. léegi ñaar yooyu muy doon yow yaa ngi seeg ku jigéen ki mais yaa ngi seeg chaatin bi léegi boo amee doom ala kulli ñoom ñaar dañuy composé moo tax sëy na bëri na sëy yoo xamante tey jii gaa yi nga fiy wala sëy yaa ngi nekk ci biir kër yi fekk dèjà sëy dañuy jaaloo hmm? ah yàlla moo ko yow yow balaa ngay euh, jël soxna wala balaa ngay wut benn liggéey da war a julli ñaar rakk def istixaar mais dangay ngay dem si sëriñ bi nga naan defal ma istixaar sëriñ bi nelaw ba kontaan bu yeewoo ne la gis naa lii ak lii génnal saraxan lii ak lii ku jigéen gi baax na dèjà yow yaa ngi dimbali ko yàlla sëriñ bi nga xamante ni moom moo la defal loolu moom xamul sax ndax dina yeewu est-ce que mus nañ gis tamit benn sëriñ boo xam ne dafa fanaan def listixaar euh, day def listixaar ñu woo ko ñu ne carrément tey feesal na dèjà loolu mosoo ko gis mooy nit ki yow yow am nga wàll ci nga xamante ni mooy sa boroom mooy yàlla yow yaa xam xawuma yàlla maa lay ñaan ndey faat bi may waaj a takk nii wala astu bi may waaj a takk nii bu fekkee dafa gën ci man gën sama diine sama àdduna ak àllaaxira yàlla yàlla na nga yombal suñu diggante bu fekkee yàlla kii gënal ci man yàlla yàlla ma jox keneen ko gën dèjà nit ki foog nga bàyyi ci loolu xel mais bu fekkee da nga sàggan nga yaakaar sëy sëriñ bi moo mën a yeew sëy bi dem yeew la soit mu sëf la wala soit mu am leen lu mu rey sacrifice dèjà indi na pacte ak ak jigéen ki mhm. mais yéen ñett yéen a ngay séddoo mooy lan ëllëg sa doom bu nekkee fii di def ay yenn toj-toj wala nga nekk jàngal du jàngi wala muy daan ay rab. Uh-huh. wala muy taal ay kër comme kii lu ko dal nii déjà yaa ko teg sa bopp. Uh-huh. mais li nga wax yëpp man li ma ci gën a soxal euh, ndekete njaboot gi dinañu am nu ñu mel noo xamante ni ndekete ca jur yi la. ci waajur yi la. Euh, ku fekk doomu jàmbur détourné ko ba mu topp ko mu mën ko ni gauche mu jaar gauche mu mën ko ni droite mu jaar droite ci loo xamante ni. ni ñu ko liggéeyee mm-hmm. daanaka lépp seytaane la mm-hmm. tas noot doomu jàmbur mm-hmm. noot ay waajuram ba ñu may la ko nga foog ni yaa ci nekk mais ndekete dina ko wëlbatikuwaat ci say njaboot met loo leen lu ñu war lu ñu warut a mel mooy li ma lay wax rek boo xoolee ba ci mbër làmb yi tey ji dañ gis benn mbër boobu dañ koy sacrificer muy daan ba ñu yaakaar moom mooy ci nekk seetaan bu lay yëkkatee ba nga yaakaar yow yaa ci nekk bu lay daan daan bu ñaaw da ñaaw parce oh. que moom <laughs> ndimbalam du continuer ndimbal yàlla rek kay wër wóor mais boo on tey jii ñu fi dàkk takk gàllaaj dàkk sacrifices def sacrifice a problème soit mon mu am ay gàllankoor yu koy sonal wala mu am kenn ku soit ci doomam ou wala ci waajuram wala kenn eh, toujours da nga dans quoi même les bi nga ni des sacrifices, pacte ak shayatin parce que les am ay adat yoom rek dañ koy bind ci dugal ci ci te asma allah mais nit qui da ngay jël indi genre affaire yo li ay turu yàlla la fekk dèjà bool na ci ay turu malaaka ak ay turu shayatin ne la carrément lii nii boo ko takkee dina indil gàlla dina indi njëriñ lii ak lii te shayatin bi ak gàllaaj bi ak xam bi ak jalan bi lépp dafa am pacte ak shayatin parce que yàlla mooy naan ci alquran yuallimuna annaasa sixra boo xamee xoolee zaman yent yàlla Suleymaan am na shayatin yoo xam dañ doon def loolu ba ñu naan yàlla Suleymaan amaana moom day njabar yàlla mu ne wa maa kafara Suleymaan walaakinna shayaatina kafaru kon déjà yàlla buy wax toujours moom du wax borom xam-xam la wax de du wax ak borom alal yi de yàlla borom xel lay wax ak mu nit ki yow war nga xam ne carrément bu ngay judd ànd benn gàllaaj booy dee tamit du ànd benn gàllaaj est-ce que mos ngaa gis kenn koo xam ne kuy dem Màkka tey jii di takk gàllaaj mhm. mosoo ko gis est que tey ñun africain mënuñoo yeewu toujours ñu jàpp ne carrément gàllaaj wala mani euh, wala di sacrifier moo ñu tax avancé te toujours ñu gën a delluwaat ginnaaw est-ce que Donald Trump day takk gàllaaj est-ce que Messi day takk gàllaaj wala waa Barça dañu takk gàllaaj ñun ñaata yoon la ñuy dem coupe coupe d'Afrique mosuñoo jël coupe te ñaata borom xam-xam lañ daan ñoo fi nekk déjà kon tey jii en tant que jullit yow yàlla da lay baaxee dara mais da nga koy sàggane boo ko sàgganee nag xam nga keneen ji. yow daal li nga gëm daal mooy nit ñi bàyyeeg seen bopp yàlla. moo gën a wóor. Mhm. parce que yàlla moo ñu gën a jege suñu buum xol. nit ki daal lépp looy def lu jiitu avant même boo feebaree feebare compliqué jàppal julli ñaar raak nga ne yàlla yàlla nga ma boole ku ma mën a faj ci lu tegu alquran ak na yàlla dina la wommat ba boole laa ki nga xamante moo lay faj te doo am benn gàllankoor. Mhm. lu am lu ëpp important ci nit mooy li nga xamante ni euh, dafa tegu ci diine l'islam loolu mooy woy te loolu mooy doon li nga xamante mooy barkeel te loolu rek mooy rafetal tam sama mujjantal incha mais boo jëlee yàlla tekk ne jël seytaan jiital ko yàlla toog di la seytaan d' jërëjëf Cheikh Djibril Diallo am solo ci nit ñi bàyyeeg seen bopp suñu borom subhaanahu wa taala waaye itam di seeti borom xam-xam yi mel yéen ñoom itam xam ne mën nañ la defaral dara lu jëriñ lu am solo la lu am solo la. waaw ñun toujours nit ki bu ñëwee bu ñu la considéré par lu jiit avant tout dañ lay delluwaat ci yàlla. mooy lan nit ki foog nga xamal ko kuy sa borom parce que ëllëg nit ki bu faatoo tey jii yàlla du la laaj ñaata baccalauréat nga amoon ñaata yi nga demoon mm. ñaata BFM nga am yàlla mu lay laaj man rabbuka kuy sa borom man diinu ko ñaata ñaata borom kat-kat ñoo fi nekk tey jii wala ñaata borom diplôme ñoo fi nekk tey jii xamuñ luy baax baada salaam luy la salaam ñaata borom xam-xam ñoo fi nekk tey jii mokk luñ faate wala ixlaas ak falak ak nees ñaata borom alal fii parfois damay gis yenn patiente yoo xam ne dañuy ñëw ci man parfois ma ne la est-ce que xam nga luy sangu janaab ñu naan la mooy loolu man du ma ci nekkee pare pare naa ci moo tax xoolal toujours bëri na ci ñoom ñoo xamante ni ay gàllankoor kese lañ soit bu ñuy dee dañuy paralysé wala ñuy am ay cancer yoo xamante ni dañuy yeew rek jékki am benn paralyse euh, paralysé wala am ay cancer yu leen wala yeneen genre yi que lu tax dañoo war a toppatoo euh, dañoo war xam seen borom mais duñu xam seen borom boo xoolee bëri ay daara yoo xamante tey ji ñooy fii jox ormaaluñ leen alquran nak boo ormalul ormaalul nak nag <laughs> bu la jekkoo nag tamit def lako mm-hmm. def lako def ko sa njaboot mm-hmm. boo xoolee tey jii xale day judd tayji nga war ko yóbbu jardin nga nan nga yob ay crèche war ko yóbbu dara kay nga nan nga yob ay crèche xale bi da nga koy war a jàngal diineem mu ñew nga jangal ko 2 2 jours 3 jours nga ne day dem vacances te pourtant yow dang ko wara xamal luy dinem lo mo jiitu avant tout mm-hmm. mais nga yob ko fe mu dem vacances soit mu nek ci plage bi di fee ba lap wala mu nekk foofu di def naka su dul noonu ëllëg mu màgg bëgg a xam kuy boromam fekk c'est trop tard te yonent bi sallallahu mooy naan kullukum raay ba kullukum mas'uulun an raayati euh, waajur bu ne ëllëg yow sàmm nga si sa njaboot yow yàlla moom lay bind sa àdduna bind indiwu la fii pour ay diplôme indiwu la fii pour ay leneen lu mu lay indi lu jiit avant tout pour nga jaamu ko fi parce que dafa ne wamaa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mais pourquoi pas nit ki mënul war moom xool carrément li ko indi ci àdduna lan la pourquoi pas yow mission bi la yàlla dénk ci kaw suuf mënoo ko matale matale mooy lan nga koy doxee di ko jëfee yee nit ñi tamit sa njaboot tamit nga mun leen teg ci yoon li euh, siraatul mustaqim ëllëg boo faatoo ñoom ñoo lay ñaanal boo ko dugaloon daara ëllëg tamit boo faatoo moo lay ñaanal mu mun na laa ëllëg boo fi tabaxoon daara tamit ëllëg daara jooju lépp ñu fa jàng bépp aayaat yi dalay fekk sa biir bàmmeel mhm. nga tabax fi tamit euh, lu euh, nga defar fi ay robine nga defar fi leen loo xamante ni masjid la tamit nit ñi dafa julli tamit képp ku fa julli tamit yàlla dalay partage ci loolu nga xool tey ji lépp loo xamante lu baax loo def yàlla dafa la ko fukk lépp loo def lu bon tey ji nga am ci benn nga gis tey ji fukk-fukk yooyu day dem ba néew ba benn benn boobu mooy dem ba fukkam subhaanallah yal nañ ci yàlla musal moo eh, tax dafa am important parfois uh-huh. yàlla bu la wërsëgalee dara uh-huh. yow su toogal nga santee yàlla uh-huh. parce que sant yàlla moo am solo mais nit ki parfois day dem ba de seytaan da ngay jay moo taxit xoolal rek tey ji ñi nga xamante ne iman nekkul ci ñoom taqwa nekkul ci ñoom stress rek moo leen bëgg a rey moo leen bëgg a rey moo tax foog ñu delluwaat xel yi ci suñu borom subhaanahu wa taala te aussi ñoo ngi dégmal weeru koor bi nga gis tey jii ñu bëri dañ naan saison baa ngi waaye di tëj plage yi fees dell oh. xam nga di naan carrément suba la saison bi tëj ak gens yi mel noonu déjà yow moment bi ngay fee ci géej gi wallahi yàlla mën na laa alak foofu xanaa ñoom fàtte nañ Firawna la moo ko laboon xanaa gis ñoon Indonésie lu fa daloon ñooñu noonu yow déjà yow soldaaru yàlla yow yaa ngi ko song ba pare di def ay ñaaw ñaawte foofu yàlla moo bëri yërmande mu di seetaan rek. moo tax yàlla bu la mayee xel yow war nga mën ci def attention bu baax a baax surtout waajur yi yow tey jii euh, ngay bàyyi sa doom di def loolu nga nga bàyyi ko mu topp naf soom wallahi ëllëg dina la ko te cher yàlla dina ko laaj te bu la laajee ëllëg <laughs> di am problème. jërëjëf Cheikh Djibril Diallo.

57 57 77 187 57 57 wala ngeen jot ko ci 33 820 70 15 33 820 70 15 di wax nag ni numéro bii di 77 bi 487 bi mën nga ko woo ci whatsapp wala imo wala viber viber foo nekk ci àdduna bi rek mën nga dégganteeg moom fa tabaarakallaahu luy sa soxla wala luy sa jàngoro euh, mu def ci li mu mën li ci des mu bàyyeeg suñu borom mi tëlewul dara subhaanahu wa taala Euh, euh, Cheikh Djibril yan kàddu ngay dénk mbokki taalibe yi yi lay déglu ak itam weeru koor bi nga xamante ni bari na ci ñuy tappale jàngoro yi ñuy feeñal lu mel ni ulcère rek jàngoro yu baree baree bare yooyu day feeñ te koor di jàmm yàlla bu réeré bu am solo lan ngay dénkanteeg ñooñu rek laataa ñuy tàggatoo. waaw da loo xamante ni comme ni ma la ko waxoon sànq rek ci. nit ki ak lu mu mënta am parfois da nga war a vidéo nit ki di nga jàmm yàlla à cent pour cent mais terewul dina am ay yenn rëcc-rëcc yu ndaw yoo xamante ni di nga. dal dal ci àdduna. te yàlla def na la weer boobam weer promotion la boo jégaloo sa borom te ëllëg tamit da lay ramb xam yàlla mooy naan ci alquran ittaqullah xaythuma kuntu ragalal yàlla ak foo mënti nekk. weer koor dana loo xamante amul tricher. te nit doo ko xam-xam moo la gën a xam boppam. te nit ki tamit yow loo xam-xam sa bopp yàlla moo la gën a jege sa buumu xol. Uh-huh. kon boo tappalee di indi ay feebar yàlla xam na. boo wooree tamit ëllëg bénéfice ci ñoom ci yow dafa am benn borom xam-xam eh, bu mu sa expliqué mu ne weer weer koo dafa mel ni waajur ñaari promotion la yoo xamante ni boo ko respecté dëgg mooy nga doon jaam yàlla pare respecté waajur uh-huh. respecté weeru koor ëllëg bokk na ci li nga xamante ni du la jafeel benn benn yoon ci pour nga dugg aljanna. Mm. te sax ñoom li ñu xamul mooy koor dafay faj. jàng yi mm. bëri na jàngoro yu bëree bëri yoo xam te ni koor a koy faj. waaw loolu la ñu xamul parce que boo xoolee tey jii euh, koor lu muy nettoyé ci nit ki dafa bëri te weñ lu mu xomaat xomaat booy zikri euh, tur yàlla lu euh, boo si defee pétrole mu set mais xol tamit lu mu xomaat xomaat. boo booy zikr di jaam yàlla normal surtout weeru yërmande bi nga xamante ni yàlla day mépp shayatin tey jii lépp loo ci mënta def rek sa naf sa nga topp kon tey jii mun ngaa profité ci weer boobu xamoo ndax euh, beneen weer bi euh, beneen at bi di ñëwaat ndax di lu fekk parce que am ñu fekkoon bi pas soit mu doon sa rakk wala sa mag wala sa yaay wala sa papa wala sa nijaay wala sa maam fekkaatu leen fi. Uh-huh. kon toujours yàlla bu la wërsëgalee nga fekkee ka nga la waaye góor uh-huh. uh-huh. góorgóorlu nga xam ne carrément li occasion la te mën nga cee profité tamit te mën na laa jural lu bëri sa àdduna bi incha allah. dafa am benn waay yoo xamante ni dafa amee jabet. dem hmm. dafa amé hmm. gom gom bi tew wir mu dem hôpital ñun ko ñew da nga jabet hmm waji di joy joy joy metti dem setti ben serigne serigne bi niko woral hmm jox ko niko woral 2 mois waji teglé 2 mois diko wor hmm mais bi 2 mois la ta 2 mois yi jeex gomum wirna hmm. bi 2 mois yi jeexé mu dem hôpital ñun ko kan mo wax da nga jabet yo amé wo dara parce que am lu tax xolal koor ni mu def yaramu nit ki nit ki do ragal yalla rek yem ci mais bo ragalé yalla par dang kay wolu yent yu fi jaar yëpp yàlla da leen testé ci tawxid mooy ci ragal yàlla boo xoolee yent yàlla Ibrahim. alayhi salaam bëggoon nañ ko fi dóor. Eh, dugaloon nañ ko fi ci teen façon malaaka bu ne ñëw na ndax ma sauvé la mu ne man yàlla laay xaar ndimbalam lan la yàlla wax. Mm-hmm. yaa naaru kuuni bardan wa salaam ala ibrahim ala ibrahim yénti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko gars yi attaqué toog ci buntu néegam eh. lan la ko gars eh, lan yaasin wa bu mu génnee kayin gisu ko kenn gisu ko bu mu duggee ci biir pax bi moo eh, kii aboubacar siddiq lan la ko yàlla wax bul tiit man maa ngi ànd ak yow boo xoolee foofu kenn gisu ko mm-hmm. yénti yàlla musa mm-hmm. boo xoolee mu ak Firawna kon toujours nit ki war nga mën a góor góor roy ci ñu baax ñu kon toujours nit ki yow war nga xam ne yàlla ji nekkoon zaman boobu yàlla jooju moo nekk. moo fi nekk ba léegi. kon foog ñuy gën a góorgóorlu surtout ñun jeunes yi la yàlla gën a soxla. Mhm. ñun ñoo toll suñ bunt ndaw yàlla nee na jox ma sa ndaw ma téye la sa màgg. te di ñaan yàlla ñiy tegu ci yoon bi yàlla na nañ ci yàlla saxal amiin amiin nga xamante ni daf ñoo nekk ci njuumte mhm. ak ci yenn uh, jëfin yoo xamante ne jëfin ñaaw la di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla wommat teg leen mustaqim te di ñaan yàlla aussi yàlla yàlla rafetal suñu mujjantal teg ci yoonu siraatal mustaqim te weeru koor bii di ñuy dëgmal yàlla nañu yàlla may ñu tàmbale ci bismillah jeexal ko alhamdulilah te lépp luñ ci jaamu tamit yàlla nañ ci ko yàlla nangul di yàlla seen rajo bi yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na yàlla yóbbu rajo bi ci kanam a kanam yàlla na leen yàlla defal yiw defal ñu ko ñun ñëpp incha allah def ko ci réew mi def ko réew julli ñi suñu borom xam-xam yi tamit yàlla nañu yàlla nañu yàlla sàmm te aar leen incha allah amin eh, jërëjëf Cheikh Djibril Diallo mbokk yi di am mbégte rek ak contentement ci suñu ànd ak yéen saa su nekk ci waxtu bi waaye di sant di gërëm Cheikh Djibril Diallo mbokk yi ni leen ko waxee woon rek saa su nekk bés bu jot ci waxtu wi fas yéene nañu ànd ak yéen ci borom xam-xam bu leen di gindi ci seeni jàngoro boroom xam-xam bu leen di gindi ci seeni soxla euh, tey jii ñu dalaloon nag koo xamante ni kenn du ko présenté kenn à travers le monde entier sénégalais yépp xam ko euh, muy Cheikh Djibril Cheikh Djibril Diallo di boroom xam-xam waaye nag di ku yàlla baaxal ci jukkoom ci melokaanam euh, fa tabaarakallaahu bokk nag ci ñi nga xamante ni ñoo ngi taxawu jaamu yàlla yi ci li leen yàlla dimbali ci seen mën-mën Cheikh Djibril vous pouvez ko jot ci 77 187 57 57 77 187 57 57 ou alors 33 820 70 15 33 820 70 15 jërë mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje suba ak jàmm ci waxtu wi tey nag suñu émission kàngamu Sénégal ñoo ngi dalaloon euh, Cheikh Djibril Diallo borom xam-xam bu mag bi nekk fii ci Yoff mbokk yi ba suba jàmm jërë ngeen